أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله spécial rentrée des classes ah ou école bi c'est une société CIPEX, une société industrielle papeterie express pour Sénégal une équipe dynamique te qualifiée à 100 pour sénégalais, jeunes sénégalais ces machines machine industrielle de la haute technologie di propose proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la CIPEX lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnelle la CIPEX lance cette année Kayeteranga à promotion Boumouchaï. le paquet de 200 pages avec les 5 pièces à 1400 francs Li Sénégal le paquet de 100 pages avec 10 pièces à 1400 francs Mustam Sénégal stock limité une promotion disponible en couverture plastique 60 grammes et 80 grammes suñuy boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM color LPM KAULAK, LPM TILEN, LPM KURMASAR, Hello Partenaires, GBIS Mou, GBIS KAULAK, LPM Bount, centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et les parents d'élèves nous vous proposons des produits de qualité supérieure à petit prix avec le cahier Teranga la qualité saute aux yeux des prix exceptionnels en carton sont prévus pour vous les commerçants et grossistes pour tout renseignement renseignements, contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02 dañuy jëflante ak mairie yi dañuy avec ak municipalité yi ak ministère yi ak ñi nga xam bonne volonté yi bëgg a ci jang pour xalé yi ngeen ñew ñu jox leen ay cahier ci ay njëkk yu yomb ngeen dimbali xalé yi ndax éducation moy réew لا فد فوقكم ولا شلت يداكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وعلى آله وصحابته أولي الفضل والبركات mbokki jullit yi ñi ngi yëkkati nuyoo ak li mu lamb lépp gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne suñu maam ji di maam cheikhul hajju malik radiallahu anhu واخنا سي لوني وانت نيانال صحابه ييغا خامني ньо لاخا سايو وون داركو با الاسلام نيون مام شيخ الحاج مالك دي واخ نان جزا الله قوما هاجروا نحو ربهم وما عاقهم عن الجلاء فضول نينا يالنا يالا فاي صحابه يي نيوم ني گد سين علال سين نجابوت seen lépp ngir ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir lislaam ñëw buñ ci jógee nak ñu ñaanal suñu maam yi ci réew mi yépp wante tey kiñ ciy jël mooy maam Cheikhul hajj malik radiallahu taala anhu kooku nga xam ne góor gi Abdullahi Sow bu Dagana day wax ci moom ne zur man anaara lana sirra alxaqiqati ma nahji shariati ma sirril ibaadaat ussil ibaadaat góor gi Abdoulaye Sow nee na bu burdu bi jotee demal Tiwaawan nga ziyaare ji ñu ne ko lu tax mu ne kooku moo ñu tàqaleel xaqiiqa ak sharia matière yi nga xam ne soo ko jàngee dangay ngay jekku sharia moo ñu ko leeralal wante turu yàlla yi gaa yi sikkar te mu lëj moo koy lijjanti maam alaaji Mansour wax na ko kam min balidin qalil al fahmi xaddaqahu waaye kam mushkilin min rumuusi sirri abdahu suñu mam joju nga xamne moy mam cheikh al Hadj malik radiyallahu taala anhu yàlla yàlla fayal ñuko suñ ci joge nak ñun nuyu borom tëyma tey ci wolof mooy personnalité ci tubaab xam nga kana mooy ku am dogu ga xamuloo kana mooy alxalifatul am li tariqati tijaaniya te ñaar yooyu mooy personnalité lu baax la ci nit rawatina ab jullit wante ak dogu lu baax la ci ab jullit ñi ngi koy nuyu ci cër bi mu am ci ñun ñuy doomam di taalubeem di taalube taalubeem di ko wàcce wàccu waayam di ko ziyaar istimdaadan xam ngeen buñ ci jógee kuñ ciy teg sahibal lataafa xam nga kana mooy faxlu fuxuuli shuara muy sëriñ Maodo si Dabaax ku lewat ka te am ñeewant wante boo boole woon kuuyi waykat yi yépp mooy seen kuuy ci way di ko ziyaar di ko ndokkeel buñ ci jógee teg ci sahibal himma wal kuttaabi boroom yitte ju réy ja xam nga kana mooy kii ci sama gannaaw jéggal ma joxoñ bi gars yi ñoo installé nii kooku nga xam ne mooy le recteur de l'université de maam Cheikhul Hadj Malick radiallahu taala anhu Paul Marty dañ ko yónni njarnde ngir mu raju raju mooy agent secret bi mu defee rapport dellu dañu ne ko loo gis mu ne université populaire matières yi ñuy jàng yépp pour diine jag tariqa jag dañ ko fay jàngale loolu Paul Marty moo ko wax ci maam Cheikhul Hadj Malick radiallahu taala anhu وطبع الحاج منصور نفى يوما تراه لتدريسه ويوما لوعظ وهدي الامم ووفد المساكين في داره مسيلا بحور الندى كالديم انا يعني بو فك شيخ الحاج مالك لال ني جان سيرين علي نغي موتاخ مودون كو جوي بيم في جوغي كوكو دي سونو واي جور دي سيرين بابا كرسي ومام عبد العزيز رضي الله عنه buñ ci jógee nag ñu nuyu sëriñ Moustapha si ñu gën koo xam ci Serigne Góora bi nga xam ne maam alxaaji Mor Kujje Sy moo ko meññi te Serigne Pape Diop wax na ko léegi maam alxaaji Mor Kujje Sy boobu moo tariloo suñu maam di maam Lamine Fall buñ ci jógee ñu nuyu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane jiima Tidiane yi xafif aw shaddidi kenn du wax tiijaan ta tombe gi amul bu ko xecc waye jim gi bu la nexé nga def ci shidda bu la nexé nga woyofal ko ma ngi mun yetul murid man tijjaan la ngay wax wala nga ne man tijaan la waye kenn du wax man tiijaan la su ngeen fàttalikoo ci gannaaw amna ben oustaz bu doon wax mbaxana lay tekki nak ben giir la ca Maroc bu ngeen demee ci ifhaamul munkirul jaani bu maam Cheikhul Hadj Malick leeral na ko ci di nuyu sëriñ Pape Diop ci dal gi macha allah allahuma la adur wante di nuyu képp kuy borom xam-xam ku nekk ci jataay bi képp kuy ustaaz wante di nuyu xawaasin yi su ma ne xawaasin mooy jamu Hassan ibnu Thabit muy waykat yi ndeysaan xasaan ibnu saabit day xool yonent bi ne ko xuliqta mubarraan min kulli aybin mam alaaji mansour feelu ko ne yonent bi day ka annahu kama yacha sawarahu baari nasab mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ci bind ci jikko ci jaamu yàlla yàlla moo ko melal ni mu bëggee mu mel mbokk yi Serigne Pape Diop junj na ko ci li ñu war a waxtaane mooy wareefu ku ñuy topp ci ki koy topp wareefu ki ñuy topp ci ki koy topp Serigne Mansour si Dabakh ambassadeur bi ñuy jàng Beyrouth daanañu daje muy ànd ak Serigne Abdul Ahad ñoom ñoo yore woon kowet yore siri yore Liban maa ngi rappelé bi ñuy daje ci hôtel Marriott bi nekk Beyrouth ñu ngi lay nuyu di la wàcce sa wàccuwaayu nuyu naa ko léegi bi may nuyoo avant ñuy tàmbali burdu bi temps bi moo xat kon li ñu bëgg a waxtaane yow mi nekk ci biir zawiya bi ak yow mi toog ci kanam écran yi moo xam écran bu mu ci mën a doon maa ngi dégg démb suñu way jur Serigne Babacar si abdu di wax ne burdu bi dañ ci war a am luñ ci jànge luñ ci jëlee pour mu defar suñu dund ñu war a waxtaane ki nga xam ne dañ koy déglu ba noppi di ko topp ki koy déglu di ko topp ban waru gar moo ko war ci moom wareef wan wareef moo nekk seen diggante ñoom ñaar ñu bëgg koo jële nag ci alquranul karim ak sunna su yeneen bi aleyhi salaatu ak njàngale maam Cheikhul Hadj Malick radiallahu taala anhu xam ngeen ne bépp doomu aadama bu majeur am xel responsable ko bépp doomu aadama yow ki toog ci kanam tele bi bépp doomu aadama bu majeur am xel responsable ko responsabilité yi nag bokkut imam bi ci jàkk ji responsable la bàyyi bi ci kër gi responsable la boroom kër gi nga xam ne mooy jëkkër ci ñu tudde ko jabar responsable la noonu nga koy toppe chef de quartier bi responsable la député bi ministre bi naa yem foofu dégg ci yi ci des mais ñun bi ñu tax di wax diggante sëriñ bi ak taalu bi tàgge bu ne am na jàppal diw ñun boobu lañ ci jukki boobu mooy bi ñu ci ñor boobu mooy bi ñu ci soxal ñun nit kooku nag nga xam ne responsable la beneen nit di responsable ni moom ñëw ne ko dama bëgg ñu ànd dem ci ngërëmal yàlla kenn du ànd ak nit di dem ca yàlla ndax ci yàlla temps existé wul place existé wul contexte existé wul distance existé kon dangay ànd ak moom pour dem ci ngërëmal yàlla comme xamuloo yoon wi ñuy jaar ba yàlla gërëm la nga ne ko damay ànd ak yow pour ma dem ci ngërëmal yàlla ndax wa ridwaanun min allaahi akbar yàlla nee na ngërëm looy wut ne sama ngërëm lalu nga teg ci bu way jur yi keneen koo ciy teg nga teg ko ci tek ci bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam keneen ko ci tek nga tek ko ci kooku nag nga xamne moy serigne bi ak talube bi mo waral waxtan wi tay waxtan woowu nak dañuy jël mam Cheikhul Hadji malik radiyallahu taala anhu mu representer al matbu'un wala al matbu'ain mbok yi responsabilité bobu donul ne fi ci aduna lañ ko jëlé وانت بين نيو غول تي ادونا لا نكو جيل تي خطبه مام شيخ الحاج مالك بن رضي الله عنه دا نين دي ديغ مونان شهاد شهاده من لم ينسى شهاده قبليه موي الست بربكم قالوا بلا بابا نيب ني وون واو كو نيو في نك بو генي تي ريسبونسابيلتي با نجا جيلون في نجا تي генي واي جيلون غاكو فالي bala ma koy romb ci biir xutba boobu dafa am faute de frappe xutba yu ci bari da ngeen ciy romb day def warham xawzatahum faute de frappe la maam Cheikhul Hadji Malick wax mi la bindoon Serigne Alxaaji moo ma ko wax ne Serigne Alioune Gueye moo ko ko wax wax mi xawzatahum faute de frappe day dal day am ci téere day am feneen moo tax maam Cheikhul Hadji Malick daf ne woon radiallahu anhu wolof dafa defe ne nar du télé jàng mool du yak dafa ne won wolof dafa defe ne nar du télé jàng mool du yak moy wolof dafa ne nar naar bu mu gis man na jàng lu mu gis ci mool lu wér la waye wahmi mom la mam Cheikhul Hadj malik radiyallahu anhu bindon bu ñu ci alquranul karim ñu fa fekk ne képp ku ñuy top am nga responsabilité ci ki lay topp yàlla neena inna aradna al amana ala samawati wal ard ba ay ba jeex neena dama jël kolere kolere gogu borom xam-xam yi neenañu moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mané asaman do ko jël mune ma dedet mané souf mune dedet ne déedéet wa xamalaha al insaan wa xamalaha al insaan wa xamalaha al insaan doomu aadama jël ko bi mu ko jëlee nag bi mu ñëwee fii ci suuf kóllëre googu daf koy topp bu fekkee ku majeur la su fekkente ne ko am xel la kon benn aayaa buy wane ne képp ku ñuy topp am nga responsabilité ci ki lay topp aaya bi ci topp yàlla dafa ne فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون yàlla nee na maa ngi giñ ci sama bopp ne ñoom ñépp ay responsable lañ rawatina ki ñuy topp te bu ñu ñëwee danaa leen laaj ñoom ñépp ka doon toppe ak ka ñu doon topp lan moo doxoon seen diggante yéen ñaar ñaari aayaa ngoog ñetteelu aaya bi afa xasibtum annama xalaqnaakum abatha ba aaya ba jeex yàlla nee na da ngeen a yaakaar ne dama leen bind indi leen ci suuf te dara waru leen ba bu ngeen dellusee ci man du ngeen ma rendre compte ñetti aaya yooyu doy na pour bañ ma gudd ñu ñëw nag ci xadiis ñaari xadiis rek laa ciy indi mu doy sëkk suñu demee ci saxiixul buxaari ku ñuy wax ismaayil mooy nett li jële ci ku wax malik muy imaamu malik bi ngeen xam muy imaamu daaril hijra mu jële ci abdullahi ibnu dinar mu jële ci abdullahi ibnu omar yéen ñi nga xam ne da ngeen di jàng xadiis dañu wax ne as silsila al dahabiya fi lxadiis mooy an malik an ibni omara muy chaîne yi nga xam ne mooy chaîne yi hadis yi bi ci gën mooy nga ne imaamu malik abdullah ibnu omar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu lu ñu wax abdullah ibnu omar nee na man kenn nettaliwuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ci làmmiñam ma dégg ci sama nopp ñu ne ko lu mu wax mu ne def ne alaa dama ne mag ñi daan wax alaa waawee ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu xew mu ne kullukum yen ñep ra'in ay sàmm ngeen wa kullukum yen ñep mas'ulun an ra'iyati kumu don ci yen góor jigen ku ñuy top ki topé bu ëllëgee danañu ko laaj limu don sam mu ne fal imam alladhi ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi nee imam imaam bii jiite nit ñi mas'ul la muy responsable la bu ëllëgee danañu ko laaj nit ñi nga xamné ñom la doon jité mu tek ci mom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne war rajulu raain ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun an raiyatihi yow mi nekk ci sa kër responsable nga ci say soxna responsable nga ci say dom te bu ëllëgee yàlla daf la koy laaj mu ne wal maratu raaci ala ahli beyti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ula anhum soxna su ne ci biir kër boroom këram bu yowmal qiyaamee dañ koy laaj kër jëkkëram nu ko doon gérer ay doomam nu leen def te danañ ko ko laaj jigéen ñi dégg sama kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadiis dafa ñëw ci buntu àjjana téye bunt bi di xëcc benn jigéen ñëw téye loke bi di xëcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam xëcc mu xëcc xadiis laa lay wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kii kan la ba may téye ci bunt bi mu du ci téye di di man jibril moo ñëw ne ko gis nga ndaw si xam nga lu tax mu am pouvoir bii mu ne ko xaw ma ko mu ne ko dafa yar ay doom kon jàngeel ci burdu bi ci biir zawiya maam Cheikhul Hadj Malick ne yow jigéen yar sa doom mën nga ci amee grade boo xam ne kenn xamul nu mu toll yowmal qiyaam yonent bi teg ca ne wa abdu rajuli raain ala maali sayidihi wa huwa masulun anhu foofu nag moom def ci duggaale ki nekk ci kër sëriñ bi di toppatoo mbir yi di recevoir affaire yi du jaam mais responsable la ci yimi recevoir bu yëggul ci sëñ bi bu ëllëgee yowmal qiyam yonent bi tëje ko nak ne ala kullukum ra'in wa kullukum masulun an ra'yati ndaysan bay serigne babakar mag ñi ñoo daan wax ala shadda lam mahun la wala mahun ndaysan suñ mag ñi yàlla ñu leen yàlla fayal kenn du ñoo nee nañ boo toppee alquran ba mu jeex allah yi am shidda benn muy 45 wala 46 moo tax ñu naan la allah shadda laam mahun la wala mawun kon mag ñu ku leen munta tagg ku leen munta ñaanal nga war leen a mën a baax est-ce que nit mun na liggéey ci dara te amul matière brute alquran ji kumu ci ñun soo ci nab nabi tey da nga fee fekk matière brute boo xam ne mag ñi ñoo ko conservé su dul woon ak ñoom doo ko fi fekk kon mu réer ci laa lay waxaale ne maam Cheikhul Hajju Malik radiallahu anhu am na ñaari diplôme ci riwaayatu warsh ci riwaayatu qaaluun mi ngi ci kifaayatu raagibin te boo demee kutubu sitta saxiixul buxaari saxiixu muslim sunanu ibn majah bu tirmisi bu nasaa'i daarami moom la ñuy tuddee kutubu sitta yépp am ci ijaaza kooku du cuune kooku du cuune xadis bi ci topp bu ñu demee ci saxiixul buxaari danañ fekk abu juhayfa daf ne wali ahlika alayka xaq kenn ku nekk ci ñun responsable nga ci sa njaboot kon da ngay jànge ci soko yobbo dang koy baxal dang koy tufe ya xam lo koy def mais na la leer na am nga ci sam man mi amna ci sam anas ibn malik radiyallahu anhu nee yonent bi alayhi salatu wassalam mo ne inna allaha saailun kulla raacin amma staraaah xafidu am dayaa te la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ku ci nekk li la yàlla dénk responsable nga ci léegi nag soo demee yowmal qiyaam yàlla dana la ko laaj ndax garde nga ko wattu ko def ca lam la digle wala danga koo sànk kon indi ci lu gaaw njaabam gëléem ci ron lal alquranul karim ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma li ci ëpp ci responsabilité bi nga xam كيني توب ام نكو كي كوي توب دا ما كوي اندي تي مبند مام شيخ الحاج مالك رضي الله عنه لاج ما لوتاخ بوين لا لاجي كولا ميت بوين لا لاجي كو تانغ لوخو كلا ميت تي كين كو نيك سيب بي لا گنا جيغي مولاي تانغال وتا ما جيل مام شيخ الحاج مالك سونو توبي اي مبندم موم مام شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه dañuy fekk ne moom responsabilité boobu ku motax mom waxul won ken top ko dabo lol na leer ci bop nit motax muné won ne qaidun liman amma al ilaha fala tamil ilayhim nadimu nas fil walay qombal lako waxe dafa wàcc ci gar bi ànd ak góor gi Amadou mbay mawdu digeunte gar bi ak keur gi mu jëm mun nako dox ci 20 minutes mu dox ko 1 heure de temps ndax bu doxé touti rek ñu dogale ko si bu doxé touti ñu dogale ko si bam agge ci kër ga la ne góor gi Amadou mbay mu ne ko annas nit ñi mu muné ko qaydun soo bëret bëgg dem ci yàlla dañ lay tataf muné nak bo bëggé am dara ëlëk bul def fo tollu nek ci nit ñi lolu motax muné arkanu baytin turiduna duxuula bihi ju'un wa uzlun wa sumtun sahru ajfaani yana ku bëgg am dara ëlëk ma ngi lay dénk ñent ñi ñeme xiif lool moo tax mu ñeme woon xiif léeg-léeg ngay beru waaye foo tollu nekk ca nit ña doo xalaat soo xalaatu doo régler sa bopp soo réglewul sa bopp doo xam loo am wa xaasib yi nafsa lu mu ca teg fi dunya ah تربح دون خسران وحاسب النفس نفس في الدنيا محاسبة قبل القيامة قيامة تربح دون خسران من سنن واحسب النفس في الدنيا محاسبة قبل القيامة تربح دون خسران وتحاسب النفس نفس في الدنيا محاسبة قبل القيامة في ذكر حكيم أتت على لسان حبيب الله بيك وخل وإذ تبرأ في ذكر حكيم أتت على لسان حبيب الله بيك وخل وكل راع غدا الله بد des na ko laaj ca lañ ko doon adduna mooy tool bi nañ góorgóorlu mbañ mi rafet te sell ngir ke ñu jëm te bàyyi ak tilimal shahada bàyyi simaali ne ku nekk na wit wut jubbalam ànd ak di fuglu bu baax almawta xam ni du jaas foo toll yow fogarul xam leen ni day bette yaa ixwaanu kenn di xamul fu mook nu mook kañ la waajal ko am na ajal لكل عبد نصيب منه كن قرأو ديلن كو عجل فين من تل أمن أجل دفل سيبل رد المولى كموج لجن وكل زاد بلا تقوى العزيز الديل وكل زاد بلا تقوى العزيز الديل وكل زاد بلا تقوى العزيز الديل وكل زاد بلا تقوى العزيز الديل وكل زاد بلا تقوى العزيز دوم كتب نيبال كجيت نيبال حاجة بايس ني كجيت نيبال تي جلل تي ويفل كتب تجنو تي حرمال تبندل جل ku jiitu nay baale tey jëllale tey woyofal ku topp tey ginu tey xormaal te bañ di la jël lii bu amee taabi ak mat boo danañ jëriñu te luy jëriñ moo di gëm la nga xam ne moom jëriñul loolu sëñ bi laaj ndax amati na waaw wax na nee na amatu suñu wayjur Serigne Mansour Sy Dabakh رضي الله عنه nga xamne buy waxtaan boko de déglu ci ci ci nimi nimi ñëwé ci côté yi dafa am lu ñuy tuddé mushaarik mushaarik moy ko xamne da fay ag ci xam-xam fo xamne lu mu soxla day daal di ñëw moy li maam xalifa waxoon maam al cheikh al hadji malik wa kullu fannin lisaanu hal qala lahu alqi al asa talqa min taysir ma asura ñu ngi lay ziar di la ndokkel di la jox sa way bi nga am ci ñun bay alxaaji Mansour fan la yemon wa xaasibi nafs ma ngi don wax ne mam Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu li Abdul Aziz danele li ñuy waxtane mom la way moy ki toppe amna na lu ko war ki ñuy top amna lu ko war kenn ku ci nek defal li la war mam Cheikhul Xaaji Malik mi ngi wax ci risalatul latifa نعم الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها تجمعهم دي من من نيما جس أك نيما قمون ندان نك تي طريقة مي نيني أمونيا طريقة بين جاب أك بنيلي جابون دي بيان الله موي خيام بنيك waye ñima gis de wuté ñu nañu ña jappon ci tariika kon dégagé na responsabilité waye déglu ko rek wolof day wax ne xamut bëggut bëggut wutut wutut amut lépp loo xamut doo ko bëgg loo bëggut doo ko wut loo wutut doo ko am maam Cheikhul Hadji Malick boo ñëwee ci moom responsabilité bi muy njëkk a dégager mooy day fexe nga jàng jàng day fexe nga xam moo tax muy wax ne walay sa farqun بينما الإنسان والحيوان دون ما عرفان تقنطرة المريد نين النت لكو تقلق باي ما دارا لدو القمقم موتخ مودو لمي نجك مام شيخ الحاج مالي لمي نجك دف تيو موي قمقم لي ماي بغا واخ استاذي كيف كو يوري ميكرو دي واخ جلال بيت بيتي تي الحاج مالي نيو مدو جوم دي waaye mën naa bañ a bari daf mën naa bañ a bari daf ne laa taxfalanna saatan uxayya salla ilahuna ala nabi mu ne an sababil kalaam nee na boo demee ci barab ñu yëkkati kàddu jox la nee na bala ngay wax dara na leer ci sa bopp lu tax ngay wax ma axyaanihi jamono ji ngay waxe sëñ Mansour ñu ngi lay nuyu wa kayfihi ni koy waxe wa kammihi li ngay wax nu mu toll makaanihi place bi ngay waxe ترجمان العلم والقرآن المشايخ منبع إرفاق تاج العرى وكما تل القمرين سام المقام وعمدة العلماء بل تاج العلا وكما تل القمران هو الكهف المنيع بلا ارتياب هو الدليل إلى الجنان حلفنا سباني ما سباني ما سباني ما مولى سباني ما سباني ما سباني ما مولى هو العلم الفقير نزيع علم خليفة شيخنا ناجى تجاني سباني ما سباني ما سباني مولو سباني ما سباني ما سباني سلام المقام عمدة العلماء بل هذه العلا وكما تلا القمرين هو ذل فضل وعارق وطريقه موضوع لم يقتل من العيران وقم المريد وخم المريد وخم المريد وخم المريد وخم المريد وخم المريد وهو سعد مريدي كم لإله إلا من العبدان سام المقام وعمدة العلماء بل تاج العلا تاج العلا تاج العلا وكما وكما تاج العلا وكما اعتلى القمران سيد حاج مالك فبوصف بتكتكو ديوانا نعم نرك déedéet da ngaa wàcc lool boole ku ñëw nga teral sëb nga leen mastakal xiyaar yi kenn desul te kum ci doon fu mu ne mawlaawu lay taxawal sil haaji maali amul moroom xanaa boroom yonent bi yaa fi doon doonoom sa dundu gépp sa mebbi koom say mbir dëppoog lawet ya wal alamul فقيه نزيد علم موضع خليفة شيخنا نادى تجاني سباني يا ما سباني ما سباني ما سباني يا ما سباني ما سباني تبارك الله قبنا عليك تيرك ما ماسله mangi don wax ni responsabilité yow mi tok ci kanam écran bi ci biir Sénégal aduna bi mam Cheikhul hadj malik responsabilité bi mu ñëk dégager ci ki koy topp mooy na jàng motax mu ne ala kulli matbuin dilalatu taabiin lima huwa ajda la li qalbi atay maam Cheikhul hadj malik neena kep ku ñi top am nga responsabilité ki lay topp nga tektal ko yoon wu baax mune waaye nag doonul ne nga def ko am sàq yemu ca mu ne wa taalimuhum fardun nee na ki lay topp nga jàngal ko farata la nga ne ko man jànguma mu ne wutal ku mën a jàngale nga di ko fay muy jàngale mu ne walaw bi ijaarati nga ne ko man mënumaa jàngale wutuma kuy jàngale mu ne alayka al ismu yowma liqaay kon kooku dégagé na responsabilité am ci ki koy topp te bi njëkk a wax mooy néewul kenn topp ma def na xiddi leen annaasu xayru waxul topp ma ba pare nag ne la jàngal kon moom responsabilité boobu dégase na waaye yemu ca bi nga jàngee ba xam la ne la booy seet koy topp kaay ma wax la ki ngay topp nu muy mel nga ne ko nu muy mel mu ne la ida lam yakun fi cheikhi xamsu fawaidu وإلا illa fa dajjaalun yaquudu ilal jahli sooy wut koy topp juróom yii na ca ñu ko yàlla mu basirun bi ahkaami sharia day doon koo xam ne day jàng sharia ba ne ar ku la rawut mënu laa jàngal ku la gënut mënu laa defar ku la tanewut mënu laa dimbale li tax góor gi Ablaye Sow naan ko zur man anaara lana sirral haqiqati ma dégguma dafa ne ku la rawut mënu laa jàngal ku la rawul mënu laa jàngal ku la gënut mënu laa defar ku la tanewut mënu laa dimbale tanewul mooy ëppalewu la mënu laa dimbale te yooyu yépp a ngi ci Maodo moo la raw moo la gën moo la tane ndax bi bàyyi alaaji Mansour naan kii ni fii daarihi musilan bu xuuran nit na daa kaddiyam bul jàpp ne Maodo daf daan jàngale kese soo ko masaana fekk mu toog am na ñu ñëw dépense la ñuy wut ñii luñ jënd ordonnance ñii ku leen dimbale lim daan bay njarde xajutoon ci ca dund ba xaju fa xaju ca bu paree daf koy wisaare ndeysaan mu ne nag ki ngay topp na nga xool juróom nekk ci moom kon moom bi mu la jàngalee ba nga am xam-xam yow mi toog ci kanam écran bi dëkk Sénégal wala nekk bitim réew daf la jàngal ba nga am xam-xam mu wax la nu ñuy tànne koy topp nee na na doon ku jàng sharia ba ne ar su la waxee ci tariqa wala ci xaqiqa lu leerut ci sa bopp boo ne ko ratt poñe mu yeew mu ommat la ba ne la ci dattu aaya bii laa ko jële wala dattu xadis bi wala ci qiyaas bii laa ko jële mu ne day nekk aarif li ñuy wax tariqa daf koy xam xam nga sharia mooy maam ji tasawuf mooy yaay ji tariqa mooy sët bi waxuma la Maodo mais xoolal ñi ko toppoon ku mel ni Serigne Hadi lan la wax joxal xaqiqatu xaqam jox shariatu shartam ñu ne ko lu tax mu ne loolooy li ñu xam ñun gaa yi tijjaan lu nu xam nani nun gaayi tiijaan mu ni bul saaga bul xaste bul jow bul di mer tarjatul saa yoo mere bul xuuloote bul di reetaan tiijaan bi bul xotti yow war may diine bul til waaw waaw bu mu shaari atu loolu xewul ورب الدين ايتي على جاغل يوجو خلابا ميبا واندي سوا برغاني جوغان جي الوقت يوتغ جرمي الله بلتيني مجهول جفونا nam ci yoonu tijaan mu ni tijaan bi bul xotti yow xormay diine bul tilimal mbubbum shari'atu loolu xewul ci tijaane mu ni jooxal aqiqatu حق يخشاني عاتو شرطا لولو مويل الغمن نرجعيتي جا من بلساقة بلخسة يا بل جو بل دينر سايو يوم بلخورات بلديرتا يم لن في نين نين يم تبيت بي بنتي بنتي لوشي خولي آه، بنتي مو نه بنتي lu ciy xew léegi penc yi xaste ak géew yi nag ak jëw ak jëw nee kuy jëw mën ngaa lekk sa mbokk te nee ne kuy jëw daal moom dama rek ba yow mën ngaa lekk sa mbokk nee nga àggale Mansour bismillah li li li li li sa wax maam alaaji Mansour daf ne لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى حذيان من قيل وقال تي غرام بلاص لا كو لي سام باباي واخ نينا نيت ني سيني نداجي تي سينيغال لي تي اوب امول نجاري ني نكو لو تخ مو ني توك دي ورانتي تي بوليتيك تي لامب تي فوتبول جيو سامروم اكسترا nga ne ko ah man dama nekk ci réew moo xam ne ndaje yi dañu bari de mu ne la waqalil min liqa'i nnas illa li axdi almin aw islaahi xaal Maodo nee na bépp ndaje ñu invité la ca wala ñu yëgal la ko bala nga caa dem seetal ñaar boo demee dégg fa loo xam ne sa xol dana tooy ba boo delloo kër ga mën a jaajuwaat wala mu defar sa toogaay ba yow la nga daan def nga bàyyi ko yaakaar naa nag li duuf ci nag nag bi xëjul ci cin li te am na lu ma waxoon ne Cheikhul Hadji Malick moo ne woon jamono bi ngay waxe nga bàyyi ko xel ndax nit ñi wéruñ toogaa yu yàgg yi ndax daf ne an sababil kalaam ma ahyaani yi jamono ji ngay waxe ay kilifa nekk fa toog lu yàgg sonn ñi wéruñu loolu ñu bàyyi ci xel kon nag bu ko defee ñu xam ne di duuf ci nag bi xajul ci cin li xam naa foofu lañ koy yemale rek ah def ko ci congélateur bi ba beneen yoon waaye bu dul woon temps bu xat bi ba ñu wax leen Maodo ki koy topp lim ko war a def ak lim ko dégagel ci ay responsabilité xam-xam bi doomu laa ci wax Cheikhul Hadji malik parcours xam-xamam mi ngi tàmbali 1858 ba 1888 muy at mi mu demee mag muy 30 ans d'étude 30 ans d'études kooku du ànd du ànd ak ku jàngul loolu moo tax sëñ Hadi Touré feelu ko te ci moom la toppoon loolu moo tax sëñ Hadi Touré ne la jàppal bul woy te julli te wut xam-xam ba am ca doy ngay jaamu yàlla bu baax tey musulu tey ñaan xam-xam a ngi noonu kon moom ñi mu àndaloon li tax nga xam ne ku fonkoon xam-xam la damay maasale rek dañu fi indi lettre def ci adresse bu ñu bind français kenn mënu ko lire Serigne Hadi Touré ne daaray Maodo kenn waru fi indi luñ mënta jàng ngoon jot mu gàddu saagam dem ca gaar ba ne day jàngi français mutul une semaine gars yi dañ ko daan fekk Fass Touré mu di leen dicté ñuy bind ñoom xam-xam la ñu xam Cheikhul Hadji Malick xam-xam la xam xam-xamam mi ngi ko feeñale ci xilaas sharia am mi ngi ko feeñale ci kifayatul raghibin bi nga xam ne ñëpp wala ñu bari dañ ko allergie lekk جويتو نلقاوتي طريقة بي تي رسالة اللطيفة جويتو لقاوتي شريعة بي تي كفاية جويتو لقاوتي شريعة بي تي همزيان بوبو مدف جويتو لقاوتي شريعة بي تي نوني يام بمدف دف بوكو لك بمدف دف تي يورنت بي بنيوتو دي ريو زمان كون نك بوكو دفه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علم المنع الحمد لله الحمد لله الحمد لله spécial rentrée des classes ah ou école bi c'est une société CIPEX, une société industrielle papeterie express pour Sénégal une équipe dynamique qualifiée à 100 à jeunes jeunes sénégalais jeune ces machine industrielle de la haute technologie di propose proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la CIPEX lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnelle la CIPEX lance cette année Kayeteranga avec promotion Boumouchaï. le paquet de 200 pages avec les 5 pièces à 1400 francs Li Mustam Sénégal le paquet de 100 pages avec 10 pièces à 1400 francs Mustam Sénégal stock limité Il y une promotion disponible en couverture plastique 60 grammes et 80 grammes suñuy boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPR LPM Sandaga LPM Koloban LPM Kaulak, LPM Tilen, LPM Kurmasar. Hello partenaires GBIS Mour, GBIS Kaulak, LPM Bount, centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et les parents d'élèves nous vous proposons des produits de qualité supérieure à petit prix avec le cahier Teranga la qualité saute aux yeux des prix exceptionnels en carton sont prévus pour vous les commerçants et grossistes. Pour tout renseignement, contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02. dañuy jëflante ak mairie yi dañuy ak municipalité yi ak ministère, yi ak ñi nga xam bonne volonté yi bëgg a ci jang pour xalé yi ngeen ñew ñu jox leen ay cahier ci ay yu yomb ngeen dimbali xalé yi ndax éducation moy